lu TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. man wax dëgg yàlla. supporteru Modou Lo la ba sox biir xolam barke maam Cheikh Rafa waaw wax dëgg yàlla man bu ne man man man de bu ma sañoon barke alxuraanu karim yaa sama mbër day bàyyi bëre ndax lépp lu nu warloo nag ñun rek wax dëgg yàlla defal nañu ko may ziar bu baax sama mbokk moomu di doon supporteru Balla Gaye wax dafa rafet trop. barke maam Cheikh Rafa a ah, neex lii mooy àdduna ñun supporters yi ñoo réeroo rek di nekk ku nekk di gis sa bopp ak di wax mais ñoom bëri barke alxuraan ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ku ci nekk yaay mooy sa bopp xaalis na rafet daal ndax yaa gis wax dëgg yàlla man de moo loolu laay noyee moo ne sama xol bi bañ na ko sax ay combat am ba mu daan ba pare ma doog a jubilé may doog a xool te télé bi te teewut barki alxuraan noonu laa bëggee Balla Gaye ndax damay di taalibu Serigne waaw te Balla it doon koo xam ne daa baax lool waaye mën a bëre lool nag wax dëgg yàlla waaw ku doon sportif rek di supportable làmb rek war ngaa bëgg Modou Lo war ngaa bëgg Balla Gaye barke war ngaa bëgg Ama Sène barke alxuraan ñoom danoo mën a bëree wax dëgg yàlla danoo mën a bëree waaw may leen di siyaar bu baax di leen màggal bu baax di leen wax ni seen kàddu yi rafet na trop barke Sëñ Bamba